man li may wax dama ko xam dama bëgg ñun ñëpp ñu bàyyi xel gis nga xéewal bi fi yàlla def pétrole bi feeñ moo ëpp ba ca Iran bi feeñ Sénégal moo ëpp ba ca Iran gaz bi feeñ Sénégal moo ëpp ba ca Russie te Russie mooy servir Europe yépp gaz ndax dégg ngeen wax bi Russie moo tax Poutine kenn ñemewu ko laal boo ko laalee mu tëj ay robinet ñëpp Europe ñëpp dee ndax gaz bi ñuy utiliser li ci ëpp Russie lay jógee moo tax ñemewuñ ko laal Russie lañ koy bari barile barile gaz bi feeñ Sénégal moo ëpp ba ca Russie kon xéewal am na waaye xéewal yal nañ ko muurloo nag coor xam nga lu tax may wax nii gis nga xéewal yooyu yëpp. bu ñu amul jikko yu rafet duñ ko jëriñoo billaahi wal kitaabi bu ñu amul jikko yu rafet duñ ko jëriñoo xam nga ña koy jëriñoo ay jàmbur ñooy ñëw exploité ko yóbbu ko jëriñoo ko bàyyi ñu ñun ñu walaakaan loolu la président teg bëtam xam ne fokk jikko yi changé nit ñi redressé wu te avant 2024 dina commencé Sénégal dina commencé ñam xam ngeen luy ñam mooy ki ki ki nekk mbool ki ki bay dugub ba ba mu toll ci mbool mboolu nga dem ca tool ya doxantu dagg ñetti gub indi mbool ngeen ñam xam ne tool bi daanaka ñor na pare na avant 2024 2022 2023 Sénégal dana commencé ñam te dootul dakk ilaa yawmil xiyaamati ndax li ci gën a yées fii ak 50 ans pétrole bi du jeex gaz bi du jeex mais loolu war nañu wax nit ñi lu tax ñu am jikko yu rafet man koo utiliser parce que yeneen pays yi ko am te seen jikko rafetul xoolal Soudan tey est-ce que li am mérité woo nañ ko xoolal Algérie nañ defar suñ jikko yi te xam ne président tedd na ba noppi xam nga li may métti mooy da ngay gis ku naan président président tedd na ba noppi. tey bu ko woon it ila yowmil qiyaamati senegal dañ koy fay Ablaye Wade da ngi nii ba bés penc dañ koy fay buy ñëw aéroport buur la bummi la par la force day am gendarme yu koy garder ba yowmal xiyaam ba ba muy génnaat dina yal na yéex mook soxnaam ak doomam weer wu jot dañ koy fay Abdou du a ngi nii jóge na fi avion bu mu dugg sax ñun ñoo koy fay ñun avion ba Abdou Diouf dugg ñoo koy fay kooku tedd na ba yow mal xiyam kon lu ñuy waxati rek pour ñun la du ci pour ñoom innamal umamul axlaaqu fa in humu zaha euh, fa in axlaaquhum fa in innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in ah? fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu xeet wi yépp seen jikko rek la leen yàlla di nattee yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kama takunu tawalla aleykum nee na ni ngeen mel nag buur bu mel noonu la fi yàlla di teg réew mi nag neexul waxe man mosuma lekk dërëmu président billaahi wallahi tallaahi mu ngi may dégg 2007 laa ko xam nag Abdoulatif Guèye ko indi woon ci man mais mos suma lekk cinq mille francs wu président de la république ci rajo laay wax ci tele laay wax su mosee am rek na ma woo ma delloo ko kon xam nañ ne li may wax yàlla tax te su ma neexee suba ma gis ko kon xam ngeen ne li may wax dëgg kii xam na li may wax bu dul dara Alioune Sall sama xarit la su ma ko noonu léegi fekk ma ci tant bi billaay balaa may daaneel mu fekk ma fi dem leen ngeen laaj Alioune suma lekk 5000 francs wu président de la république ndax dama jàpp ne day liggéey may liggéey naa ko dimbali ci li muy liggéey mais pas mu di ma jox ma di may def ci sama poche la may def ci sama poche naa ko ñaq parce que day ñaq moom may ñaq loolu laa gëm biroom te ma ma loko ya maa ko moom boo demee biroom juge la fa def boo booy dugg si maa ngi ko tudd maa ngi tuddee société bi Dabakh Maritime boo duggee si so ngan dum photo àla jab du bopp bële nga fay fekk moom mu def juge ci biir bureau bi ma ñëwee ma ne ko Saint Esprit prise xaw ma naka ne ko ak góorgóor loolu bu baax noonu la ah waa moom la gëm dinaa ko ko dimbali bu man maa ko ko gën a gëm fuuf maa ko ko gën a gëm amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qaalu samina wa atana gufranaka rabbana wa ilayka almasir foofu laa jeexalee sànq 124 mille yonent yi benn boo ci ne gëmuma ko rek yéefar nga yépp ngay boole gëm ah te yonent yàlla isa kañ mooy moo sës sax ci yonent bi loolu la doon tiitaroo moo wax ne inni ubashirukum bi rasulin yaatiya min baadi ismuhu ahmadu maa ngi leen di bégal ci yonent boo xam ne dana ñëw sama gannaaw man isa kooku mooy ahmad xam nga lu tax mu ne ahmad boobu yonent bi ganeegul àddina te yàlla nga ko ko won ca malawul aala ci asamaan juróom-ñaar fa la ko yàlla wone turu yonent bi te foofa ahmad la fa tudd moo tax sañuloon a wax muhammad tur wa ko yàlla si la sañ a wax mooy ahmad moo tax mu ne inni ubashirukum bi rasulin yaatiya min baadi ismuhu ahmad moo tax nitu yàlla yépp d'accord nañ ne koo bëgg a defar ci yàlla te xamoo turam wa ca kaw doo ko defar est-ce que xam nga ne soxna astu jaxa bi wala soxna astu Touré fii la yem fii waaye asamaan yi am na beneen tur boo fa am bu dul astu ture alaaji sàmba ba fii la yem asamaan yi xamuñu alaaji sàmba ba xam nga noo koy xamee envoyé western union wala wari wala joni joni ah ay chiffre lay doon jaawaleel benn chiffre rek neel bii un la naa ko def zéro ba xam ndax dinga jot doo jot dara dara nga dul jot fa ngay nekk kañ di xuloo chiffre bi lii laak lale la lii laak lale la waaye boo ko indee chiffre bi normal ñu verser la sa xaalis nga dem sa yoon loo bañal yàlla bañal ko nitu yàlla nangul nga ko àddina lépp luñ doon bañal sëriñ si tey àddina pour na ko yaa bañ ne sëriñ kër si mënul nekk sa sëriñ mënul nekk sa nangam nangu àndeek ñoom ñépp ngay ba te boo bàyyee ñépp yàlla wax ak yow mbokk yi nañ ko tàmbalee ci suñu bopp rasulullahi jikko la ko yàlla taggee wa innaka la ala xuluqin azim la ko yàlla taggee waaye taggeewu ko juddu alaaji masil lakan mii di dem moo koy wax mooy wax ne gannaaw ñun ñëpp ci yax bu rëy lañ bokk mosuma dégg ko ne ci yax bu sew laa bokk ah moo koy wax de gannaaw ñun ñëpp Sénégal ñëpp ak ak oustaz ak euh, Chérif Mami gannaaw ñun ñëpp ci yax bu rëy lañ bokk nañ def jëfi ku rëy bu kenn jël jëfi ku tuuti amul kenn kuy taxaw naan max man ci yax bu sew laa bokk mas nga ko dégg soxna Asi man de mas nga ko dégg gannaaw ñun ñëpp nag ci yax bu rëy lañ bokk koy jox mu ne la ci yax bu rëy laa bokk nañ def lu rëy te wolof nee na ku def lu rëy am lu rëy ngir yàlla nañ defaraat jikko yi nañu bëggante nañu soppante nañuy demlante ci lu baax di waxlante lu rafet yàlla lim ñu wax wa qulu linnaasi xusna door caa teg wa aqimu salaata wa atu zakat yàlla nee na dee leen wax nit ñi lu rafet su ngeen ca noppee julli leen génne leen azaka woor leen xam nga loo ciy déggee dàq la julli julli kaata te sa làmmeñ wi teg gi woo ko ci delu gor yi loo jaamu yàlla yàlla séddale ko yoonu makka ak te sa làmmeñ wi teg ci delu yi loo fa jëlee yàlla séddale ko gor yi téye sa làmmeñ dara dàq ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bii ñuy waxtaanee nee na cër yépp bu ñu xëyee dañuy dajee ci làmmeñ ne ko làmmeñ tiin ñu ngi lay tiinu dimbale ñu soo jubee ñu jub waaye soo dëngee ñu dëng bu ci nekk delluwaat këram mu ne bari na ku këpp kanamam gi ca safara ëllëg rasulullah mooy wax nee na ngóobiti làmmeñam moo ko fa dugal Serigne Cheikh si nee na sawar làmmeñ jarul wax luñ lay dumaa ne na sawar làmmiñ jarul wax luñ lay duma sawar làmmiñ jarul ko mu ne jarul wax lu luñ lay duma te Sénégal wax rek wax rek wax rek yàlla li ma si la kan wax wax rek rawati réseaux sociaux yi réew mi kenn du ñëw di ñu ko defar ñun ñoo koy defar kenn ko nekk nag nga tàmbalee këram baleel sa kër ba mu set baleel sa bunti kër ba mu set mais utal poubelle boo ko def état it maa ngi leen di ñaan lii ñu bëgg mu am ci réew mi tàmbalee ci sama xarit Mor alaaji Mor soo demee nga jotalal ma ko alaaji Mika honorable député boo demee nga jotalal ma ko monsieur le maire Alioune ne ko sa xarit nee na Chérif Ibrahima nee na soo bëggee lii sa mag wax président de la république mu am na poubelle yi doy loolu nag roolu mairie la man mënuma yor sama musuwaar ak sama singom xoolal tant bi yëpp sa sànni nañ ko singom ak xolliti tàngal te pourtant li gënoon jekk nag soxna astu anamu mooy bu tant bi tasee kenn du fi mën a for pusa nañ ko tàmbalee foofu ñun ci suñ bopp nañ ko tàmbalee foofu ñun ñuy organise yii nañ ko tàmbalee ci suñ bopp tant boo dugg boroom tant ba na njëkk a annoncé ne bu gàmmoo gi tasee bugguma fee gis mouchoir environnement nañ ñun nañ ko tàmbalee ci suñ bopp boo gisee yonent bi wax na ne ngëm yàlla gi gën a suufe mooy nga romb xeer wu mën a fakastal nit nga teggi ko toxal kooku santo la nga tilimal mbedd mi xeer xeer bu mën a fakastal nit la wax nga toxal ko président ministre bi ak ministre yi ak député yi yéen ñii ak maire yi su ngeen bëggee loolu réussir na poubelle yi doy dañ koy ramasse à temps kooku moom dama ci dama ciy dóor ci taabal bi mënu leen ne na yëf yi set poubelle bu doy amul Europe bii ñuy toppandoo di ko wax ñetti koñ yoo tourné cent mètres yoo dox cinquante mètres yoo dox poubelle la nga fa loo yor nga dugal ko ci waaye est-ce que mën nga fi yor kayit ŋàbb ko ba marché sam nga door ko euh, dugal ci no nit dafa yàkkamti loolu rolu maire yi la nañ ut poubelle yu doy ñu di ko ramasser à temps ma wax bu gën a garaaw Cheikh Seydi Ahmada Tidiane dafa xëy bés sa faas fekk nit ñi di set setal yii xew ñii de set setal mu woo ñu ñëw mu ne bàyyi leen ko ñu ne lu tax mu ne bàyyi leen set setal bi ñu ne ko lu tax mu ne réew mu ci am set setal waru am nañ ko def ci budget bi taalibe yëpp ne bu ma fi gisati kenn di set setal budget am na ñu ngi koy dagg ci impôt yi ñu ngi ñuy fayloo ay galag nañ ko ci liggéey réew mu budget am mairie bu budget am set setal waru faa am il faut dire la vérité jigéen ñi dañ ci leen seeni bale roolu mairie bi la yow setalal sa kër setalal sa bunti kër waaye mbedd mi maire ko war a setal Alioune Sall nekk sama xarit du tee ma wax ko lii dëgg yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina lillahi bil qisti bi shuhadaa lillahi yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qisti lillahi shuhadaa lillahi walaw ala anfusikum aw ilwalidayni ili aw aqrabina in yakun faq in yakun ganiyan aw faqiran fallaahu awli bihima réew mi neex naa defar dañ ca jubluwul nañ ñu dimbale ngir yàlla ñoom itam nag autorité yi laa wax saisir leen oto yi yàq yi yóbbu dajji leen kantini yi on est d'accord defar leen tali yi d'accord nañ waaye indi leen poubelle yu doy te ñuy ramasser poubelle yi di ko tuuri à temps mënuloo sotti poubelle bi ba mu fees foo koy sotti fenn fu dut ci suuf wala déet te budget bi doy na nag doy na xam naa li may wax budget yépp a doy bu ñu kenn fatt nañ wàññi bëgg-bëgg yi ak train de vie l'État nañ ko wàññi rek loolu yépp président wax na ko nañ wàññi train de vie l'État rek ñun ñoo bokk réew mi li président bëgg laa bëgg li Alioune Sall la bëgg laa bëgg li ma madame kante bëgg laa bëgg mais ñoom it ñun ñoo jël suñ doole jox leen ko nañ ko delloowaat ci ñun nañ ko delloo ci askan wi kon Mika yóbbante naa la boo demee ba assemblée nationale waxal loolu ne leen population bi nee nañ popel yi na doy teñ koy ramasser ci temps suñ ko defee rek ku sànneeti nag ngeen sanctionné ko waaw te sanction yi na dëgër ku tuur paani mbalit ci ci ci mbedd mi amende cinquante mille francs te ci saasi la koy fay Europe xam nga tufli ñaata la tufli cent euros tufli ci mbedd cent euros te sañoo ko sañoo ko Belgique gii nga baal ma sëñ sëñ kii eh, boo demee am na ku ñuy wax gisee tur bi lay fàtte yal na ma yàlla baal Belgique lañ xamante maag moom fi ñu xamante Belgique Faat Njaay doomu Xalifa Jàllo la amoo kat Faat Njaay sama doom la kii nuñ koy waxee ti eh, waaye waa ji jaay usmaan Ndiaye bi koy denc moo représenté lépp luy laayeen ca Belgique usmaan Ndiaye mu may seetaan dina ko seetaan ci kër Ousmane Ndiaye lañ xamante sëriñam seet si ko di Mbàkke Mbàkke gisee léegi mu ngi fay ci tolli sëñ Saaliwu yi ci ni ñu koy waxee fi sëñ Saaliwu boroon xel kom ubbi tailleur di baagante di dem di ñëw mu ngi ubbi tailleur atelier tailleur ci tuuba waaw kañ sëriñ bi ñëw passage yi ñuy jéggee xam nga dafa am passage bu piéton yi war a jéggee sëriñ bi ñëw bëgg a jéggee ne le mu ne ko sëriñ kaay te Mbàkke la sant mu ne ko sëriñ bi kaay mu ñëw mu ne ko fii boo fi jéggee trent euros ngay fay de te man aw ma fi 30 euros de nañ jaar ci passage bi mu ne ko déedéet euh, sëñ Touba am na ko mu ne ko waree da nga ciy dimbale sëñ Touba. mbay gisee billaay ku ñemee dëgg ni moom mosuma ko li may wax nii ñu may seetaan Anvers ci Belgique lañ xamante maag moom mu ne ko da ciy dimbale sëriñ bi rek ndax sëriñ bi bëggul kuy tooñ te ñoom dañoo tracé le fii nga war a jaar te sëriñ bi buggul kuy tooñ kaay jaar fii rek moo gën a woyof may fay 30 euros boo jéggee ci passage bu dul passage euh, piéton 30 euros ngay fay Anvers Belgique mais ñëppay redressé wu. état nay laal poosu nit ñi man loolu laa koy recommander gis nga yóbbu kenn ci prison bi du solution na amande yi saf nañ ko fay automatiquement léegi nit ñi rek la nit boo laalee poosam rek inna allaha ashtara min al muminina bi anfusihim wa amwalihim man li may wax yëpp waxu yàlla la de yàlla nee na yonent bi soo bëggee gaa yi jub laalal seen bakkan yi ak seen poos léegi ñu jub tubaab yi foofu lañ ko jëlee kon nag boo demee assemblée nationale dama la yóbbante de te yóbbante àq la ne leen population waaye yépp ak Sénégal yépp d'accord nañ waaye na poubelle yi doy nañ koy jël ci temps bu boobaa it ku ramassati mbalit tuur ci mbedd mi nañ ko dóor sanction bu saf-saf mu fay ko ci saa si ñu dugal ci keesu état ñun suñ bopp lañuy dimbale tubaab yi gën nañ ñoo bëgg lu baax an nazafatu min al yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax nee na cet nga baal ma sëñ Issa ma jox la kàddu gi cet ci jaamu yàlla la bokk dégg nga sëñ Issa moom yéen ñépp xam ngeen li may wax cet ci gëm yàlla la bokk yonent bee ko wax ñun ñëpp ñu ngi nii sañse benn boy niñ sañse benn boy fexeel ba boo duggee sa néeg sa néeg mel noonu soo yeggee ci salle bi salle bi mel noonu soo ñëwee ci ëtt bi ëtt bi mel noonu soo génnee ci mbedd mi mu mel noonu la ca des nga bàyyi ko buur mu defar ko waaye yow mënuloo mel nenn ni ba noppi nag bëgg a redresser kenn mënta nekk koo bëgg mu jub da koy gën a jub koo bëgg mu baax da koy gën a baax idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa du haddin adim kon nag sëriñ Issa kàddu gaagoo maa ngi baalu ñëpp àq xëy na li soxna Astu waxoon ñu wax ci sax waxuñ ci waaye li ñuy wax génn ko yonent bi lu defar penc rek la bëggoon lu defar jikko yi la bëggoon lu defar diggante yi la bëggoon loolu la fi alaaji masil la kan wax loolu laa fi wax loolu la fi sëñ Moulay wax sëñ Issa mii bu jëlee loolu lay wax mii kaa mii honorable député loolu lay wax sëñ Xaadim mii loolu lay wax ñépp loolu la ñuy wax soxna Asi mii ku ko joxoon nit loolu lay wax kon ngir yàlla nañ soppi nañ soppi nañ soppi nañ kon Mika nga baal ma rek balaa sëñ Isaa di jël kàddu gaangoo jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, Eh, ñu ngi jéggalu ci jël kàddu gi fii te mënoon na ñàkk sax eh, dégg nga Chérif ñu ngi jéggalu ci jël kàddu gi fii te mënoon naa ñàkk ndax eh, jataay bu mel nii ni mu sellee ak waxtaan yu neex yi ngeen fi wax ah vraiment waroon nañ ci bañ a mën a wax sax di jël nuyoo bi soo ma ko permettre <coughs> ma teg ko ci loxo sëñ Issa Touré mu ni nuyul ma sëriñ yu tedd yi fi nekk yëpp ndax dafa guddi bu ma sañoon ma jaar ci tur yëpp di am mbégte aussi di nuyu suñu imaamu koñ bi nga xam ne mii dama bëgg ngeen ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam ak kanam ndax nag imaam bu am solo la di nuyu suñu délégué quartier ci Diallo Wele di ñaan aussi ngeen ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko ba ci kanam a di nuyu suma xarit nag boo nga xam ne même bu ma lu ma jël jël nag nuyoo bi teg ko ci soñ suñu loxo sëriñ Issa Touré dinaa tudd suma xarit soxna Asiyatu bi nga xam ni yàlla moo ñu boole maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu soxna yu tedd yi fi nekk yépp di jéggalu ci délégation bi ma àndal guddee gi ñu guddee nii dañu war a demaat yeneen sant fii ci gannaaw te bu soobee yàlla danañ fa dem ndax lii ñuy def nii ku ñu ci invité rek dañ lay gërëm sant la ndax mbiru yàlla mbiru yonent bi kuñ ci woo loo ci def rek sa bopp nga ko defal kon délégation bi ñu àndal mooy soxna Fat Fall soxna Fat Bintu ak soxna aadama Tamba gënoon nañu bari ñenn ñi yeeweeku nañu parce que ay boromi kër lañu te bëgguñu tooñ moo tax ñu yeewoo ñu ngi leen di gërëm di leen sant sama soxna aussi mu ngi nii toog ci délégation bi la bokk tey tey bi may def délégation dafa ñëw ànd ak man muy Aïda mu ngi nii na ba baax mu ngi nii toog maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ndax ñoom ñun dañ leen war a gërëm partout ndax dañuy guddee ñëw te saa yi ñu ñëwee ñu muñal ñu kon vraiment ñoom toujours dañ leen di sant di leen gërëm di wax nag sëñ bi Chérif ñun dey mbégte lañu am fekk jataayu tey bi wax ji du gudd de ndax nag ñaari yëf moo tax muy Astou Touré mële nga xam ni tey bu doon yeneen jataay façon politicien bu nekk di nga ko fi gis façon politicien bu nekk di ko fi gis mais yàlla dafa def sama diggante ak moom mu jël lépp teg ko ci sama loxo ànd ak man ci loolu maa ngi la ciy sant di la ci gërëm monsieur le maire de la ville la ci boole monsieur le maire de la ville dafa am lu ko tënk moo tax boobu ba léegi déggantewu leen gisewu leen mais yàlla xam na ni xelam a ngi ci yow ndax dañuy toog di waxtaan ci foo nekkul sax mu lay tudd sa xarit la sa mbokk la te ay sata mële saa yu demee ci Cheikh Mbacke daf koy jox cër bu mag sëkk kon vraiment Astou man dama bég ci yow kontaan ci yow ndax li nga def nii woon nga ma ni sa borom kër la ndax sa borom kër Samba mii ñun ñoo jàngandoo ñoo defandoo sëy ñoo defandoo lépp te ñoo bokk koñ ñun ñoo jógeendoo Baye Gaynde ñëwandoo fii sama papa nekk délégué de quartier papaam nekk délégué de quartier kon moom yàlla moo ñu boole nit ku baax la nit ku yiw la nit ku am maanaa la nit ku am solo la ñun dañ koy tiitaroo dañ koy béggee sëñ bi li may wax nii euh, Chérif man dey dama am nattu te boo déggee ma ne mbégte laa am ci daje bi tey dafa am lu ma gént démb te gént bi soxna Asi mii moo ma sant dama seen koñ bi de bu ma sañoon nga sol sa dàll nga dem ci kër yépp fexe ñu ànd bokk ndey bokk baay ñu juboo nekk benn tax seen koñ bi gën a dëgër gën a baax gën a génn soxna Asi mii moom ma ko man ko soxna si bu soobee yàlla dinaa ko def kon su ma ñëwee fii tey dajeeg yéen mu nekk jotaay bu mel nii damay ñaan ngeen ñaanal ma parce que fas yéene naa ko def ci astuture mën na laa koy commencé bu soobee yàlla bu ñu jógee fii ci astuture laa koy commencé dugg ci kër bi yépp ku ma ci mën a dugg naa ko dugg wax ak yow bu soobee yàlla ñu ànd bokk ndey bokk baay waxuma waxu politique mais la may wax mooy luy defar dëkk bi luy defar suñu koñ jàmm jooju nag ñoom imaam ñii tamit maa ngi leen ciy tàllal loxo ñu ñaan ci bu baax a baax ndax nag ñun ñoo dëkk suñu koñ ñun ñoo fi nekk tey chaque fois fii suñ ci tàntatul yonent bi ñu ngi fiy tàntal sëñ Babacar ñu ngi fiy tàntal sëñ Touba ci ñoom sëñ euh, euh, déedéet sëñ naa Mbacke ak frère am di sama xarit sëñ Omar Mbacke fii tey fii moom min na yooyu kon tey ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu ci réussite ci loolu parce defar jikko bi nga wax tamit ci foofu lay commencé kon fas yéene nañu nekk soldat boobu kon lañuy ñaan yàlla bu déwénee bu ñu bu ñu ñëwaatee fii ñu rendre leen compte leen lii ñu doon ndox nii kat yàlla def na ci sutura ñun ñëpp bokk nañ ndey bokk nañu bàyyi. di ñaan jàmm joojoo ci law ci biir département Guédiawaye ndax département bi ñu fi dëkk ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mais di ñaan yàlla ngeen ñaanal ñu aussi. jàmm ji law ba ci Sénégal yëpp li nga wax lu am solo la te dinañ ci bàyyi xel dafa mel ne président def ko dégg ndax tey ci ministère de la jeunesse dañu jël Prodac dugal ko foofu te Prodac li nga wax ni loolu lay lijjanti te lu amoon na fi mais dañ ko dundalaat ba nga xam ni tey dañu war a seet naka la ñuy def ba dëkk bi doy ak ay poubelle li nga wax ci Europe xam naa ci dara Europe boo ñëwee sa buntu kër soxlawuloo gis facteur soxlawuloo gis policier soxlawuloo gis dara li ngay jëkk a seet sa boîte à lettres multu bi ngay jéem a xalaat boo nee nii boo xool boo yóbbee boîte à lettres bi gisuloo ci benn boi benn lettre bu ci nekk nga ne alhamdulilah nga dem tëdd nelaw li ma wax ñi dem Europe xam nañ ci dara waaye boo nee nii gis si boîte à lettres bi lettre li ngay da ngay tiit sa fit day daw parce que da nga naan su ma duggee xaw ma lu ma ciy fekk. te bu dee amande la duñ la topp. duñ la seet si duñ la ne kaay fay si ko dangay ngay daw ci saa si dem fayu ko ndax boo ko fayul xam nga lu la ciy fekk kon defe effectivement li ngeen wax ci yar nit ñi ci defar suñu jikko loolu tamit lu ñu war a def la fi may jeexale mooy Chérif dama kontaan ci yow ndax yow man mosuma laa defal dara mosuñu tegoo dara mais yëg-yëg bi nga am ci doomu aadama ku yor cër nga jox ko cër ba mu mat sëkk vraiment dañ la ci sant di la ci gërëm Aliou Sall mi wax sa xarit la sa xarit la bu bu ñu seede bu ñu xam mais avant avant bu lay defal dara boobu nga xaritoog moom avant ngeen di séq dara nga xaritoog moom kon tey boo ko waxee fii ñun ñu nekk ay nit ñoo xam ne dañu dend ak moom dañ koy dëggal président bi de la république bi ngay wax ne jot jotu leen def dara séq dara ñun xam nañ ci dara kon tey bu fekkee ne ñun ñii da ñuy gis ñun ñu ndaw ñi nga jox ñu suñu cër ndax tey jataay bi mënoon nañu fi ban a wax boo insisté wu loolu si duñu wax waaye nag dañ lay sant di la gërëm di lay ñaanal yàlla yàlla bàyyi la fi ba ci kanam kanam yàlla jàppale la ba lépp li nga mëbët si Sénégal nga mu mu réussir ndax nitu dëgg nga ñëpp xam nañ ko ku mu neex ak ku mu naqari ñëpp xam nañ nitu dëgg nga kon vraiment ñu ngi ñaan ngeen ñaanal président de la république mission bi ma am nii cinq ans yu mu am jàmm am Sénégal mu eggali Sénégal fu mu ko bëgg eggali rek ndax nag bu baaxee ñun ñëpp la baaxal ñaanal aussi petit frère am Aliou Sall bi nga xam ne tey ñun dañu far moom man damay wax toujours man fu ma far ragaluma piété dañu far ak moom donc dañuy ñaan aussi ngeen ñaanal ko projet yi nga xam ne am na ko aussi moom ci biir Guédiawaye mu war ko mën a mottali balaa mandaam di jeex parce que tamit nag li leer ba leer mooy Aliou ku baax la ku tabe la ku yëwan la xëj na nag boo jotewul ci moom jotewuloo ci moom waaye nag ku jot ci moom te mu leer leen ne am ngeen relation bu baax yàlla xam na ni ku baax la ku yëg nit la ku yëg doomu aadama di gërëm ñi fi nekk ñëpp di jégalu soxna soxna asiyatu ci kàddu yi dina xam ni mission bi ngeen xam ni sant nga ma ko ci gént incha allah bu sebe yàlla dina ko doxee dinaa ko waxee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërë di jégalu sëñ Issa ture ci kàddu bi nga xam ne jël nañu ko sa kanam bu fekkente ni tey nekk na kàddu bu nga xam ne tegginuwul ñu ngi siy jéggalu ba dee kàddu gu rafet aussi yàlla moo ñu jagleel ba ñu def ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw المصطفى المصطفى loole lu aljanna la moo ki teraangal ni sidna Muhammad yaa tax yàlla sànq ko mi nga waxin wa rayhaan di mi malaayika yaa leen sayid mu mën a jëm yaa leen du wommat yow mii la ko si xaajaan علي صل وسلم دائما ابدا ومن خاف وحوري jërëjëf Serigne Cheikh ñu ngi lay ñu ngi lay ziar bu baax tabarkàlla njàng bi am na solo nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uuzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi llah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ñi ngi ziyaare mbokki jullit yépp di jiital ci ziyaar boobu kilifa jataay bi suñu kilifa euh, Chérif Ibrahima ay dara di ko jox nuyoo bi bëgg mu jottali ñu ko sëriñ Xeysa moom it suñu waajur suñu kilifa ñu jottali ko bokk yi fi teew yépp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye ci biir ziyaar boobu it ñu génn ci tuuti rekk nuyu ko suñu nuyoo bopp suñuy bokki bopp suñu bokki deret suñu bokki diine waaye it suñu bokki daara muy njabootu suñu maam alxaaji Malik gi nga xam ne ñoo jege Tiwaawoon ñëw teew fii ci jataay bi di jiital ci nuyoo boobu suñu xarit sëriñ Abdou Asis wax na léegi kàddu yu am solo yoo xamante ne bii man ak moom la woon démb tey soog a ñëw ak rakkam ju baax ji ci sama wet sëriñ Cheikh Ahmada Tidiane si bu ko defee di nuyu yit seen doom soxna Asiyatu muy suñu jigéen waaye di suñu kóllëre yit nag di ko xam ne suñu digganteek moom yàgg na lool moom it lii ma dal sama digganteek sëriñ Mulaay ci soxna astu ak boroom këram bu baax bii di sàmba boole googu soxna astu tamit moom ma boole ak soxna asiyatu mu mel ne kon soxna astu moom ku ko xam ak boroom këram bu baax bii dina xam ne defar rek moo leen tax a jóg lu baax rek tamit ci lañuy dox xam gu ma xam ne it nag moom soxna astu jullit xaqan la ku bëgg diine la it ku bëgg lu baax la it moo bërëm këram bii ma xam na it mbaax googu it kenn ku nekk ci ñun am na foo ko jaare kenn ku ne am nga bunt bunt booba nag génnul Cheikhina Ahmada Tidiane yi moom seen buntu Cheikhina Ahmada Tidiane yi la ma xam ne it Tiwaawoon lañ yaakaar ma xam ne sëriñ Moulay it sama wëlëri la ñu bokkandoo jàngandoo keer at yu yàgg yàgg yàgg mag moom nga xam ne comme ni mu ko waxee léegi ma cité madinatil baxoosil islamiya waxtu wu nekk suñu jëlee suñu programme ba examen jub si saa su bëggee doxantu ngir li ñuy wax maanaam restar li nekk ci biir bopp bi dafay doxantu gàddu téere matière bi mu war a examiner ji ñëw ba sama biir nekk toog naan ma xellil ko kafe Tuubaa mu naan ñu bokk toog waxtaan mu ne ma maa ngi dellu suba dama war a def matière sàngam ñu ñaanalante ci noonu ñu def fa nag at yu bëree bëree bari ndax ci gàttal fàttalikootuma ñun ñaar ko fa jiitu man def naa fa juróom-ñeenti at ak juróom-benn weer waaye fàttalikootuma man ak moom ku fa jiitu yàlla dogalit bi bi may dem foofa di jàngi nettali naa ko léegi ci bi ñu wàccee kaamil yi ci suba bis yi tey bari na lool bari na lool ñu bari ci ay bis lool waaye yit koo xamut noo koy def nam la def moo tax yaakaar naa jamono ngi nii joo xam ne maanaam lu nekk nit mën na koo wóoy ba mu des kóllëre beneen bi ci toppit ku sonn ci kaw suuf si kóllëre moo la sonal waaye it ku noppaleeku rek jàppal ne ki la wan ginnaaw dalaa noppal waaye ki la bëgg amanteeg yow kóllëre teg la fi mu la war a teg jox la sa cër kooku daf la sonal soxna astu nag sëñ Mulaay nga ci li ma doon wax ci suba 2000 bi may dem Égypte di jàng fii laa jóge ci kër gi fii soxna astu euh, euh, son excellence Mamadou Sow ma nga xam ne moo nekkoon ambassadeur Sénégal au Caire soxnaam soxna Hawa mook sàmba mii ñoo bokk ndey ak baay mu ngoog yàlla dogal gis nga résidence ambassadeur ni ñu fa meloon yàlla ak jëmmi sàmba mii ak soxna am see bi ñuy génn di dem waxul ne ñun am nañ ay bourse moo ñu jëlee Sénégal yóbbu ñu keer ñu jàngi parce que bi ñuy dem am nañ bourse état senegal am nañ bourse état Égypte waaye teewul dañoo téléphoné soxna Hawa daal ne ko sëñ Cheikhouna mi ngi ñëw de suñu njaboot la jàppal ñu ko it sa njaboot la ba ñu demee it soxna Awa moomu di doxe doxin woowu tabarkalla dara yàquwu ci temps la muy yàgg yàgg yàgg dañ ñoo muñal ba ni leen yàlla delloosee ci réew mi delloosee waat ñu noonu ci réew mi yàlla xam na ne Moulay li ma lay wax ni lu doy waat la gis nga ba ci biñ bi ma defee école normale ba pare biñ ma affecté Sédhiou Samba mii danaan taal otoom dem palais de la république di lijjanti nu muy def bañ indiwaat ma dakaar yàlla xam na ko kon nag loolu bépp nit boo xam ne yaa ngi ci kóllëre googu ci sa diggante nit te ku ne xam na ne moom su ma jàppee dafa ma jàppee doomam jàpp ne man ci njaboot gi laa bokk Tuuba ak Tiwaawoon benn la mu jël ma nag jox ma cër boo xam ne mara day tàlli cër boo xamante ni kenn mënu laa wax cër bu doy noonu ci kaw suuf moo tax man tamit bi yàlla dogalee ma ñibbisi gis ni mu mel ci Tiwaawoon ma ne léegi naa ko jël moom it jàpp ci loxoom teg ko ci loxol sëriñ Abdou Aziz Si mi muy sëñ Mulaay mu it loo xamante ni moom moom it téyel na ma ko moom sëñ Mulaay téye wiin wu rafet a rafet rafet woo xam ne tabarkal la soxna Asiyatu ñu ngi lay doon sant bu baax waaye it di waxaat rek ne diggante këri diine yépp nag ci réew mi ñépp benn lañ waaye nag diggante Touba ak Tivaouane dafa raw dafa raw sëriñ Abdou Si Al dañoo dajee dëj boo xam ne fii ci yëmbal ci terrain basket bi maam am Njaay mi ngi may dégg waajuramu Baye Mourou Fall mooy borom këru soxna Nday Njaay gol bi moo nekkoon boroom këru soxna Nday Njaay gol bi ma dem ca dëj ba daje faak sëriñ Abdou Si ak xalifa Baye Mbàkki si ak sëriñ sëriñ Habib sëriñ Mansour si borom daara ji ak sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdoulaye si al amin ñun ñëpp ñu bokk fa nekkandoo ki nga xam ne moo mag ci famille bi bi mu jëlee kàddu daf ne sama waajur de famu ne xam naa ne ko ko fekk xolam sedd na guy ndax njabootu Tiwaawoon gépp ñu ngi fi kenn mankiwut waaye njabootu Tuubaa tamit seen ceexu naa mi ngi nii moo leen fi teewal daan kon nag nañ ko jox kàddu gi su wàccee. ñu jox njabootu tiwaawoon ñu soññu taalibe yi ñaanal leen ndax sama waajur kat tiwaawoon la yaakaaroon bi mu waxee loolu am ci mbokki taalibe ku jóg ne ko déedéet bàyyil kàddu gi bàyyil li ngay wax fii kenn amu fi kàddu sëriñ baa ngi nii toog pourtant wax na dëgg mooy sëñ Abdou Sy Al Amine wax na dëgg ndax sama waajur la te mooy sama kilifa waaye it nag am na ci baas ba ñoo xam ne gisee wuñ ko noonu gisee wuñ ko noonu waaye sëñ Abdou Si ca mbaax ga dafa wax Moustapha doomam na dem nangu kàddu gi mu dem nangu kàddu gi indil ko rajo bi mu ne gis nga ku bëgg dox diggante Touba ak Tiwaawoon nar ngaa sonn ndax mu ne kër yi diine yépp mu ne jullit mbokk gi ko yàlla dénk mu fonk ko mooy mbokkook diine mu ne kon ñun jullit ñépp war nañoo gëm ne jullit jullit mooy mbokkam mu ne geneen bokk gi nag suñu aada moo ko fonk muy bokkuk deret mu ne bu dee bokkuk diine gi Touba ak Tivaouane ñoo ko bokk ak këri diine yépp mu ne bokk gi suñu aada bokk nag Touba ak Tivaouane ñoo ko bokk kon kàddu googu may wax toujours ne Mame Maharam Mbacke moo barkeel ci sëriñ Abdou Sy Al Amin laa ci laa ko déggee ndax daf ne bu Mame Maharam Mbacke amutoon Touba du am waaye Tivaouane du am kon nag Chérif maa lay waxaat nga nga nga nga gën ñoo ñaanalaat ci ñu gën a boolewaat suñu bopp nekkaat benn ndax réew mii kat jàmm dong moo fi xaj mu mel na yi taraf bi nga xam ne dafa mel ne bu ñuy seet ni féewaloo gi ci ñoom lay bàyyeekoo waxtu wu nekk du jar sax tudd waaye daanaka du ko jar daanaka du ko jar kilifa diine yi daal la leen war ñoom ñàng ca kon nag ñun taalibe yi li ñu war nañ ci ne te ñoom la leen war mooy war maalante nañ lool bëggante nañ lool fonkante nañ lool bennoo bennoo nañ it nag nekk benn ñoom ñooñu kon nag ñun taalibe yi it li ñu war nañ bëggante nañ fonkante nañu bennoo nekk benn waaye it nañu wóolu wante kenn ku nekk li nga yéene sa bopp na nga ko yéene sa mbokk te muy lu am solo nag léegi rek wax nga kàddu gu am solo ne moom la maam Maodo wax fii ci ndakaaru fii xaw ma ndakaar xaw ma ndar euh, ne leen dem ne taalibe yi dem leen ngeen jël kër góornóor may naa leen ko ñépp ne cell kenn demul mu ne waaw fañ jëm tamit noonu lay demee maanaam awma fa ciment awma fa fer awma fa dara kon nag la fay yóbbu nit ki nit ki moo koy jëfal boppam euh, euh, oustaz Kalidou feem maanaam sànni na la aw bëyat sànq ci yaakaar naa ma xaaliqu niiraan bu ma juumut bu sëriñ Touba waaye dafa mel ni kii yoo ko bu baax sëriñ bii di wax ne nga xam ne kon liñ ci jublu rek mooy buntu yépp ñoo bokk fenn fu ñuy naane gis nga ndigal yi benn la mag ñépp a bokk lu ñu bëgg gis nga moom dafa wax ne sëriñ bi dafa wax ne rajaa u janna maanaam yaakaar ajjana bilaa taa rajaa u janna maanaam yaakaar àjjana ju àndut ak topp yàlla li sunnatil maax yi bila taati li sunnatil maax yi xuróorun yaati mu ne yaakaar àjjana joo xam ne àndut ak topp yàlla àndut tënku ci sunna su bi sallallahu alayhi wa mu ne bu ëllëgee yowmal xiyaam ay war lay jural uh-huh. mu ngoog kon daanaka wax nga lépp li nga wax rek moom la indiwaat te li nga wax maam Maodo ko wax waaye rakkam ja nekk Touba it feeloo ko loolu kon ñoom ñëpp ñoo bokk lenn luñ doon dund kon nag ñi ngi santaat soxna Astou bu baax a baax a baax gis nga moom mi fii ñuy defee jataay bi tey jii la 11 bii di ñëw incha allah muy première samedi ci weeru koor gi ma ngi ko yóbbante léegi Diop Mansour mi ne ko na ma la ko waxal chaque année daanaa ñëw sa kër indi la carte yàlla dogal léegi laa ko koy wax ma ne ko la onze mais bi muy première samdi ci weeru koor gi bii di ñëw fii lañ koy defewaat soxna Asime mosu ko wute chaque année day tombeek ñaanuk maamam giñ koy defal fële ca Faas waaye day jaar fii ñu ziyaarante ba noppi mu door a continuer foofa bis bi ren jii soxna Astu Ture mais laa def marraine bi xam nga lu tax ndax kóllëre gis nga bi may jàpp maa ngi al azar bu Thiès di jàng Cheikh Mamadou Mourtada yóbbu ñu foofu ba ni ma fa jógee ñëw fii am bourse keer dem jàngi am fa juróom-ñeenti at ak juróom benn weer ñibbi suwaat defaat école normale ba moom wax naa leen ko léegi nee naa leen ñoom bu ñuy topp nit di ko dimbale waxtu wu nekk duñ xool lu man chaque jour bu ñu ko xoolee dañ koy gën a yéene dañuy foog ne mën ñoom fi ne sama diggante ñoom noonu la demee gis nga saa suñ ma xoolee bu ma solee mbub mu rafet seen xol yi day gën a sedd bu ma amee oto bu rafet seen xol yi day gën a sedd su ma demee itali wala ma dem France wala ma dem Belgique wala ma dem Amérique fu ma man di dem ci àdduna seeni xol day gën a féex ñoom noonu lañ mel ci man kon nag maa ngi leen di ñaanal waaye yit nag lu baax moom kenn du ko def di ko rëccu maa ngi leen di ñaanal yàlla astu ak sàmba koñ bii ñu dëkk ñépp lañ boole yemale ñépp ñépp a leen respecté it dara yi àdduna boolewuleen ak nit ay nit ñu jub lañ ay julit xàqan lañ ay nit ñuy sàmm kóllëre lañ nit ñoo xam ne it duñ fekke dara dara lu yàqu ñoom ñaar ñii sàmba moom toujours damay wax ni bu noppi bëree moom la waaye bu jëf rëyee moom la moom sàmba ali mi gis nga noppi bu bëree moom la de waaye bu jëf rëyee it moom la waaye nag moom dégg na li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ida kaana al kalaamu fidda mu ne la kaana sukutu zahaban mu ne bu fekkoonte ne wax xaalisu gal la noppi nekk wurus kon lu baree ngi nii ci jamono wax a ko yàq wax rek a ko yàq ak nettalante dem diw nee na réunion fee ne dégg ngeen li di wax diw nee na nangam nangam diw nee na nangam nangam waaye nag mbir day toll foo xam ne ku ko jàpp yaa xam xam nga lu am solo jaam bi bu nekkee ci kaw suuf di dund na fexe ba. buñ koy tudd buñ koy tudd di tudd maam Alhaji Malick na fexe ba bu ko maam Alhaji Malick mere buñ koy tudd tudd di tudd Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim na fexe bu ko ba bu ko Serigne Touba mere ndax ñooñu kuñ merewul yonent bi du la mere te ku yonent bi merewul suñu borom du la mere loolu rek am solo wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëñ Cheikhouna lii bu amul yéen ñëpp rafet na wala rafet bu Cheikh waaye Cheikh ni nga yëkkatee sànq billaay sama xol dafa sedd dafa mel ni glace ci dugg ndax euh, li El Hadj Abdou Aziz waxoon Abdou Aziz Mbaye nga def dafa waxoon Abdou Aziz Mbaye ne ko Abdou mu ne ko nangeen ngeen fexe tant bu ngeen nekk ngeen yëkkati bayit bu maam borom Touba. ndax du ñàkk moo sa ay taalibeem yu fa nekk soppee leen ca te koo bëgg sëriñam mu bëgg la koo fonk sëriñam mu fonk la Cheikh jërëjëf rawati nag ni nga ko yëkkatee yëkkati yéene la yal na yàlla fay la yal na yàlla barkeelal la ak mbooloo mi nga àndal yépp foo bëgg a yegg yal na nga fa yegg ci sa barke sëriñ bu baax bii di sëriñ Issa tabaarakallaahu kon nag kàddu gi yegg si na fi muy jeexe may ma rek njaay léegi soxna Astu la bàyyee kàddu gi yow num la santee nga doxale noonu joxe kado yi soo ko joxee ba noppi nag sëriñ sax nga baalalati ñu ak kàddu gàngoog waaye kii toog yegg si léegi di doomu alxaaji Lamine Ngom xalif général bu Paal moo ko jur Baye Lamine Ngom moo ko jur bàyyi laa laamin ngom alaaji Amadou Ngom a ko jur alaaji Amadou Ngom lañ ko tuddee moom mii alaaji Amadou Ngom nag maam alaaji rawaan ngom a ko jur Pape juumu ma de waaw kañ moom mii toog waaw waaw mu ne day mu ne koo xam ne jikko bi mu gis ci moom ci Seydina Omar la ko jànge toog ba guddi dugg nag ci nit ñi di seet ci luñ ne ñi am ay jafe-jafe nga di faj ci alaaji sàmba ba mii rek la ko gis mu ne daaray alquran yi nekk fii yépp mu ne ñun ñëpp xam ne ñaan alquran moom ñi koy jàngale tey ci àddina bi joxuñ leen cër biñ leen war jox bu ñëwoon fii it fële lañ leen di teg waaye moom mii daal di sàmba alquran gërëm na ko soxnaam sële balaa ngay doonu murit da doonu jullit ba noppi balaa ngay doonu tiijaan mu ne benn kilifa barki démb la fi jóge mu ne bëggatuma dégg ku ne diw la wala lii la mu ne kon li ñu war mooy mu ne wajaal qulubana ala tawaadudi ñun ñëpp ñu bennoo nekk benn déedéet man amul man seen jaam laa rek jaam moom dañ koy sant muy def mu ne def fekk rek di la wax ne fi nga yegsee la baaxee xitaamu misk ndax sëñ saa mooy jël kàddu gi moom mii toog nag soxna as ko tax a ñëw maa ngi koy tooñ bi ma ko joxee loxoom ma ne ko ngom bari mu ne ma ngom si xam nga ma ne ko kon ngom si xam nga lu tax dafa sopp Cerno Bari bi faf niru ko léegi baayam Serigne Mbaye Sy Mansour xalifa général de Tidiane Seydi Aboubacar Sy moom ñii mu àndal ñoom imam gay mun la fa ñaan ñoom ñu ray taf ci seen kanam dugg ci seen oto ñu ngi door a wàccaat ci tànt bi mu ne kàddu ga ñu ko bàyyi muy wax moom lañ fekk sëñ Cheikhouna Mbacké sang bii di ko wax mu ne loolu nag mu ciy sant yàlla bu baax ci gàmmu docteur Bachir Ngom Touba yépp nga fa waa Tiwaawan yépp nga fa xalifa bi loolu la doon waxtaane ñu ñëwaat fii nag fekk Cheikh sëñ Cheikhouna Mbacké di waxtaanee loolu mu ne kon mu ngi sant yàlla bu baax a baax montre yu bari yëpp montre yëpp bokk heure alaaji bu saaxo daf daan wax ne borom paxi bakkan yu yaay yi borom paxi bakkan yu xat yi borom bokk bakkan yu gudd yeeg yu rëy yi ñëpp bokk li ñuy noyyi 24000 noyyi la par jour neena yaa ngi koy xamee ci montre bi ñu wékk ci jàkka ji mu ngande lool ak baraasle bi ci sa loxo ñoo bokk heure soxna Atuman Ndoye ñu ngi lay ziyaare bu baax gis nga sa boroom kër ba léegi numéro ma ngi ci sa téléphone nanguwuma ko supprimer yàlla xam na ko ba léegi numéro mu ngi ci sama téléphone waaw sëñ Souleymane Samb ñoo ànd jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax yaa ak imam Mouhamad Lamine Sakho kon sëriñ Isa baalalal say njaboot te ñaanal sa njaboot te xam ne ñun ñëpp yaa ñu bokk njaboote ganaar ngay sooxak ak mbott may sooxak ak ñépp ku ci dëng ku ci jub ak ku ciy wax lu jub ak ku ciy wax lu dëng ñépp jàppal na yaa joboote ñépp te xam naa ne xam nga ne yaa joboote ñépp kon nag bu kàddu gi ñëwee lu dëngoon defaral lu jubutoon jubbantil lu baaxoon gën a la baaxal ñaax ñu ñaanal ñu kàddu gaa ngi ko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 ñu ngi jiital ci nuyo bi borom dëkk bi dëkk bi alxaaji Alioune Sall di ci jiital préfet bi di ci jiital imaamu quartier bi ñu nekk di ci jiital chef de quartier ñëw ci jataay bi di jiital ci nuyo bi Chérif Ibrahim dara di ñun ñuy moom di nuyu sunu sëriñ sëriñ Moulay Abdul Aziz di ko ziyaara mu sëriñ Cheikh di nuyu sëriñ Cheikhouna Mbacké di ko ziyaara di ko ndokkeel di nuyu alxaaji Sàmba Ba bu baax baax di ko ziyaara di ko ndokkeel di nuyu bu baax Pape Ahmed Ngom di ko ziyaara di ko ndokkeel di nuyu sunu sëriñ soxna Asi di ko ziyaara bu baax di ko ndokkeel di nuyu daw ay riñ fi teew yépp bu baax a baax ñu ngi nuyu sopp na bi président ak ñi mu bokkal liggéey bi Badou Niass ñu ngi lay nuyu yàgg daayira bi yëpp ak koñ bi yëpp tudd ñëpp waaye maa ngi nuyu suñu député Mika bu baax a baax Chérif ñi ngi lay ndokkeel jataay boo toog maa fa toog bu ma toog yaa fa toog mën nañu baja dañe ci jataay te dinaa dinaa fa nekk di nga fa nekk complicité bi ndox suñu diggante nit ñi dañu ko réere bu métte métti ak ñu ko réere mag moom ni ñu jaxasoo néew na ay kilifa jaxasoo noonu ci ab ànd ak xol ak rafet njort ak xel ak bokk lépp nit ñi réere nañu loolu loolu lañuy dund man ak moom wax na ko ay mbokkam am na ci ñoñ maa leen jox wérd te dañu ko cee waxtaan ak ñoom waaye moo leen gën a soññ ba nu gën ci sawar ñu bokk lépp bokk sunu sëriñ nag alxaaji Abdul ci sama gàmmu maa ngi teg kaset yoo xam ne maa ngi moom ñoo ko séqoon te li ma yor ci archive yu mel noonu kenn xamul nu mu toll nit ñaan maroon nga ko teg bu yàgg man leen yooyu ya ko ya ko jiitu moo ëpp booba magnétophone yooyu kenn xamul nu muy mel lañu ko daan enregistré li ma ci yor kenn yoru ko ci bu ngeen gisee dama waxtaan sama diggante Papa El Hadj Abdoul Aziz mooy suma mosaan ñëw ñëppay génn dem ñun ñaar képp ñu nekk te lu amul seede jarul wax te danay wax ne lu wóorul ñëpp jarul wax ci pénc waaw waaw te alxaaji Abdul Aziz dund na ba jóge fi am na doomam yoo xam ne jotuma leen xam soxna Ayda Si yàlla na ko yàlla dolli yiw keroog benn koy jaale jaala jàpp Cheikh ñaa ngi nii daf ma xool ne man ndax yow yaay Serigne Issa Touré ndax sa tur dafa yàgg ci kër gi ñun ñu defee ne màggat nga ma ne ko man la mu ne boo masaan ñëw kër gi léppay taxaw ñu ne Serigne Issa fi nekk soxna Aida mi ngi fi man dañu defe ni màggat nga keroog mu di ko nettali moom soxna Aida yal na ko yàlla dolli yiw soxna astu ñu ngi lay ndokkeel ñun lii lañu bëgg boo àndee ak nit na lay indi résultat te lii résultat pire la bu kenn dul werante bi ci des sa fidélité dafa ñu neex bu teewoon xalifa général sax balay am jàmm ne ko njaboot sëñ Issa Touré yal na la yàlla dolli yiw bi ci des tam ni mu ni may doxalee man gis naa yaa ngi koy doxale keroog bi ñu waxtaanee shérif di wax yor waxtaan yu ba tey changé woo ko noonu la nit di mel ñun loolu la ñu bëgg te lii fi shérif waxtaane tey kan moo ko moom ñépp ko moom ñépp ko mën a partager waxtaan bi universel la bu yaatu ci jikko ci diine social économie spirituelle bàyyiwul dara couche yépp waxtaan bi indi na ko te loolu mooy waxtaan ña fa nekk ñépp dañuy mën a jariñu tey rek maa ngi koy wax a ah, ne tey nit ñi lay waxtaanal booba chrétien yaa ngi toog ndax yàlla yi def nit ñépp kon sama waxtaan maa ngi koy accès ci nit ñi ndax yàlla mi yàlla sax léeg-léeg xëy yéen nit ñi lay wax te am na foofu ba fa waxtaan tolloo wax ak nit ñi rek day tane waaw wax ak nit ñi rek day tane ndax yàlla moom bëggul kenn yàq societé bi te xàjjiwu ci ki gëm ak ki gëmul bëggul kenn yàq société bi dam na foofu bu fa xàjjit ak duggee rek nga ne dara du yàqu waxoo dëgg fokk am lu yàqu mooy li ngeen waxtaane léegi kon ñu ngi am mbégte di am xel mu gën ubbeeku ak di am kontante ndax ay nit lañu yor ay xol sëriñ Seexuna jërëjëf yal na yàlla fay leen lii moo di ànd ni ngeen ànd nii tey te saa yoo toogee nettali ko loolu as moo ko man alxaaji Mansour Malick nee na ba fi diina nekkagul ngor a ngi fi woon waaye bi diina ñëwee ba léegi mi ngi continuer dafay ngor loo def ci ngor rek ñu bindal tiyaaba toxal na lu bari ci aada toxal lu bari ci cosaan waaye daray ngor diina laalu ko da koy fay rek waaw da koy fay rek mais diina laalu dara ci ngor lu fi ngor lu fi ngor doon doxal rek bi diina ñëwee loo ci def am tiyaaba am yiw loolu Sénégal am nañu ko lu jiitu lislaam loolee nag bu ñu ko boolee ak sunu diine ñooy gën a piir li ku dul ñun kon ñu ngi gën dénk suñu bopp di leen dénk bu baax tey dama ni ku ne xam na ni benn bés bii dinaa ci jàpp lu mat sept programme te maa koy jàppal sama bopp ci njaboot ji waaye fii laa jëkk dugg bi ci des sëñ mbay si xadi di denc sama doom Aysatu Ture ca Tiwaawoon ca Passy tey la xewle bokk naa ci ñi mu ko tudde mu lu leer naññ ah xam nga ne foofa kenn waruma foon jiitu tey ñimewuñoo jël téléphone yi ñu may dàkke yépp kenn ñi muwul jël Aysatu ndax xawma lan lay lan la ñuy wax xam naa su waxee rek ma ne ko ah, dama am ci turé bu mag bi rek <laughs> yal na yàlla fay la soxna si ah yàgg sàmba yal na leen yàlla dolli sutura ak jigéen ñépp ak góor ñëpp ñoom damay wax ni ay complice lañu na sax rek loolu mooy dëgg ah, kon madame Ba ah yow itam monsieur Touré waaw man loolu lay wax soxna su ko su ma ko woowee mu ne kooku kana man ne ko eh, ki may wuyu kana du monsieur du madame Touré mu ne ma waaw man ne ko maanaam monsieur Kunta ah mu ree ma ree jàmm am ah, man de monsieur Kunta laa koy wax <laughs> bu ko defee mu ree ba téléphone bi war dama ni ko waaw bu ko defee ñoom suñu jàmm rek door a mën waxtaan jàmm ayul waaw ah, moo tax ma ni madame ba monsieur monsieur Touré <laughs> yal na yàlla dolli yiw ah, liñ fi waroon a wax amul sax liñ fi waroon a wax maanaam liñ bëggoon dégg dégg nañu ko fi lu ne ci dolli dañuy fëkkat xeli nit ñi ba dugalaat ci beneen gaam te loolu bare na waxtaan yu muy yàq waxtaan modéré wu ba pare ñu dugal ci lu kenn xamul yemu ca jërë ngeen jëf Cheikh Ahmed Tidiane Niang yaa ñi nga bokkal taabal ji yal na yàlla dolli seen ay sutura soxna Asi maa ngi lay ndokkeel di la gërëm ak di la jéggulu ca gàmmu kenn ba tey tegante wuñu bët maag moom xale yaa ngi ma naan ma nga toog ne le moo féete ne moo sol nangam waaye taxu rek mu sotti yal na yàlla dolli leen sutura yàlla faj seen ajo lii mooy ndaje ndaje bu teewee day mel séminaire séminaire de formation et d'information loolu lañ jële fii tey Chérif kon yàlla na yàlla dolli ñu yiw dolli sutura yi lii nga yóbbante tey yóbbante ko état bi dale ko ci président jamono bi léegi loo tudd wàllu àddina ñu defe ne leneen la te wàllu àddina nag àddina mooy toole àllaaxira ah àddina àddina mooy nawet àllaaxira dañ fay góobi te bu nawet jotee bay rekk a des àddina mooy tool yi àllaaxira ñu bàyyi ko xel kenn du fa def dara regle rekk a fa nekk peese regle notti fii la affaire bi defaral fii taaraaral fii na jub fii na rafet fii na dëggu fii na diinewu fii na sëll soo àggee foofu lépp dox loolu mooy dëgg ñu yaatal xol yi bu baaxa a baax a baax ndax li yàlla dogal dogal na ko ba pare wax naa ne leen ñun ñu ngi fàttaliku sunu jamono ñu naan Sénégal population trois millions huit cent mille man leen ana deekoon xanaa lu ñuy dégg la rek waaye kenn gisu ko tey ñu ngi naan ay treize million quatorze millions dix huit millions te boobu ba léegi yàlla doyul un mètre carré ci réew mi kon ana dee xanaa ku demee fa nekk rek waaye ñii juddoo nga judd dinaa dégg gars yi naan ba dee xewee ba tey xeweegul man ne wa judd xewee ba tey xewewul dafa fekk dañoo ragal dee rek di ko jiñ dee ah te liy judd bari na de xoolal li ñu dëkkee rek ak yof boobaak léegi Dakar li fi dëkk ni mu yaatoo te boobu ba nëgë ni armeel yaa ngi diggante eh, suma jun ak yoof ah ñooñ seen place bariwul ñun la suñu place bari ñun ñu fi desandi kon taxawaay ba mu laaj na ngir préparer loolu mooy suñu mooy suñu ndaag ci àddina taxaw temm rek ndax wax naa léegi ci sama biir saal ni leen keroog ba yàlla amalee nit ku mu àndal ba faw la soxla nit dafa war a faw ni yàlla fawoo ku dem àjjana nag bokk nga ci ñi nga xam ne yaak yàlla ba faw ku fa demul nag yaa tag ci diggante bi te ku tag yaa tagal sa bopp ndaxte yàlla keroog mu inde yonent yàlla muhammad ci la bijji jël baatin def ko muy zaayir ñépp ni fàng li yóbboo safaraa ngi nii ni fàng li yóbboo àjjanaa ngi nii ni fàng dara nëbbutuwu ci waaye la nga mën du la ko defal ñu bàyyi ko xel ndax sëriñ mën na taaliba dara ma ne ko aka ah, nit ki mën na la joxal dépense demal la marché duggali la dikk toggal la yekkal la ràccal la ba mu sedd yëngu ci mu tibb saxal la waaye sax xamee woon na yow rek mbaa dee kooku lim la mënal xool ni mu bare waaye minimum ba billaay bu amul du sotti xool lim la mënal mënal na la lu bari ku fi mënalul kenn amul man man yi dafa limité ndax am na loolu yàlla ko tëyal boppam amul amul kum ko jox yonteel Muhammad gis ngeen bañ ko laajee mbirum ruwo dafa mel ni yàlla da ko siicu ne ko loolu sama affaire la man yàlla xam nga kon nga yàlla ci ko mu jox lépp waaye am foofu ba mu fa àgg rek mu naj baaraam ah ñun nag ñu bëgg man lépp bëgg xam lépp bëgg a lépp euh, li indi conflit beeg coow li ci àddina bi du dara euh, bëgg taxaw taxawaayu yàlla ak bëgg ne man naa loo yàlla man lii rek moo indi problème yi waaye yàlla indiwul problème waaye sama yaa daanam wax doom yàlla léegi du fayu ay dana kekkantoo <laughs> waaw xaw ma nag laaj naa ko ko ba tey waaye mu déggu moo ba léegi man yàlla léegi ji de du fayu waaye dina kekkantoo <laughs> laaj naa ko waaye xam nga bi muy demee xaw na naax waaw yàlla yaay yàlla du fayu waaye dina kekkantoo mooy dan mu ne ma léeg-léeg nga yëg la dal lu la wóor ne yow xam nga ne njombe ga nga defoon moom mu dund tey te neexu la waaw ah, mën na ko d'accord xam naa ko kon léegi <laughs> allahumma salli ala sayyidina xam wa sallim jërëjëf. Euh, Chérif jërëjëf lépp yow la. jërëjëf. ah soxna Astou ala daw mel na de. Chérif nee na. sëñ Aïssa. moom li mu wax léegi. wallaay ñoom ñaar ni ñu nurooyu mbir dafa ëpp. ne laajal soxna astu wala Serigne Souleymane Samba. samedi bii ne tey ma nga woon sookoon ba ko jiitu ma nga sookoon bii gàmm bii conférence moom mu nekk fee sa wet ca Tàmba ba ñuy gàmm sama doom maa ngi ko maye ba ñuy réception jaaruma fa sax xawma sax nu xew ma mel ba fii mu toog di wax nii xaw ma lu mu fa def xaw ma lu ñu fa wax noonu la leen fa bàyyee jaarul sax ca kër gi jubali sookoon kon yéen a bokk mbir ñu nuroo ko suñu sëriñ moom mu jógee Tàmba Alaaji Abdou Aziz mu baax mi xoolal moom ni doomam borom këram di gàmm muy sëñ Babacar si dëkk Tiwaawan mu bàyyi ko fa léegi la ko sang bi di wax ne magam la sëñ Babacar ñoo bokk benn bàyyi seetal loolu ñoom ñaar muy doon denc soxna astu di doomu sëñ Issa Baye Jaw Touré mi sëñ Issa topp jur ko ñu dénk ko ko moom ñi Cheikhul Xaaji Abdul Aziz radiallahu anhu toog na fii ci pom bi ne mbay saaxu maa lay tuddal si sa doom suba ci guddi gi doomam moom Ceerno Seydou Nourou topp ci Serigne Maodo si moom Ceerno Seydou génn àdduna ci fajar gi mbay saaxu jël liir bi andil ko ko ci pom bi ne ko damaa yëg xew-xew bi ma ne xam naa ne doo mën a ñëw ma parafitoo indi liir bi fii rek pour nga jox ko tur ma delloo ji ko mu ne ko Babacar mosoo maa tooñ jàll benn bis lu dul tey jii dama noonu la maa koy tudd si waaw Thierno Seydou mu dem. lu mu jotee ma tudd si doom ki ko yóbbu moo fi indi kii delloo ji ko kenn du moom Mawlaaya nee na mbay saaxo delloo liir ba góor gi sol dàllam dem 9h tudd ko toog fa di waxtaan ba midi et demi door a joxe ndigal na nen denc Cerno Seydou noonu bu ëllëgee dana ñëw. loolu rek nga joxe léegi moom nga def Touré Mandi Mori yàlla na fi yàgg te wér foo gestu gis liñ fi wax yépp mënatul wax lu ko raw waaye nit ki nag bësam rek la am soxna Astou Touré waa Géejawaay ku niwul Astou Touré dafa baax tarkalla neen tarkalla macha allah fii la dëkkoon ci koñ bi fii lañu xamante ci koñ bi nee na am na 15 ans jikko ji ko gisee lool nag jikko jëm ko mbaax gam ko gisee lool nag moom nee na dina jóge fii ba kër Masaar di ko seet si doom ju yor doom ju yor may ko jëkkër. may ko borom kër. dina jënd seetu bagage yu tarkaal la. bokkewul xaalis bi. teewal ma ci sama bés. teewal ko ci bésam booba. mënoon na ni jógee naa fi. na ni jógee na fii. te loolu du ma rek la ko defal. ñëpp la koy defal. du yow ñëpp la koy defal. bi mu toog dafa fekk jigéen ñi kenn amul ci dara looy def lu dul toog sa buntu kër. mu changé koñ bi dajale ñëpp tey. tabaarakallah waaw su ma demee du insha allah na baax rek dama juum nag ndax bala may wax dama waroon nuyu suñu sëriñ fa tabaarakallah sëriñ Issa mu baax mii nga xam ne fii laa nekkoon mu bëgg ma lool fii la nekkoon bëgg ko lool te ba léegi maa ngi si daayira fa baax moo ci nekk ak Chérif Ibrahima Aydara ak Tidjani boobu Chérif Ibrahima Aydara ak Tidjani moo ko moom bi ci topp Serigne Insa Touré mii ak El Hadj Abdou Aziz Dabakh moo ci nekk ku si nañu jox la sa bos wane ne ni yéen ñaar yéen bokk El Hadj Abdou Aziz Dabakh ak bii mooy bés joxul Chérif bële.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

allahuma anta al awalu fa laysa qablaka cheyun wa anta al axiru fa laysa baadaka cheyun wa anta alzahiru fa laysa fawqaka cheyun fa kun lana ya awalu wa ya axiru wa ya zahiru wa ya batinu walin wa nasira anta waliyuna wa mawlana fa nihma almawli wa nihma nasir يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر ذنبنا وذنب كل من بنا تعلق من والد والولد ثم الأصدقاء نسألك اللهم يا اللهم من فضلك الجميل خيرا جما في هذه الدار وتلك الدار بجاه فضل أحمد المختار صلى عليه قلق الأطوار ملح تجة النبات الأمطار يا ربنا باسمك الغفار فاغفر ذنوبنا مع الأبرار يا ربنا بحق عين الرحمة فنجنا من شر كل غمة يا ربنا بفضل جوهر الكمال فعدنا من أهلها في كل حال يا ربنا بحق حق القدر انصر على العدا وأهل الكفر رضا ما يكيده الشيطان وكل حاصد يا سمدان ونجنا من شر ما إنسان والقلق كله وشر الجاني بجاه فاطه لما قد أغلقا وقاتم النظام لما قد سبقا على آله قارق الأنوار ما كور الليل على النهار يا ربنا بناصر الحقائق انصر على عداك والفواسق يا ربنا بحق هادي القوم سخر لنا به بهور الفهم نوير لنا نوير لنا قلوبنا مع الإيمان بجاه كنز الأعظم وسره وسر سر الأسخم افتح لنا به كنوز العلم واكشف به كروب كل غم يا قالقي بمركز الفهوم اهن علي الفهوم والهموم يا واجدي بفضلك الرباني أفد علينا نعم الإرفان بحق من لأجله القلائق وأرحلت لروضه السوابق صلى عليه مالك الأكوان والأهل والصحب مدى الأزمان يا رازقي وماجدي وواحدي إياك نستعين في المقاصد فكن لنا بحق سر الفاتح وكل آية أتت مفاته بجاه أحمد النبي الهادي صلى عليه خالق العباد فهب لنا بسورة ياسين دخولنا في حسنك الحصين ونجنا من در كل عسر إلهنا بسر حزب البهر وارزق لنا مكارم الأخلاق بعون ما في اسمك القلاق وهب لنا بكل حرف مغني غناك في الدارين طول الزمن يا مالكي باسمك العظيم عظم لنا عزا من العلوم يا ربنا بدعوة الرفات اهن علينا ألم الممات بجاه خير من مدى وآتي صلى عليه مسرف الأوقات يا مالك الملك بالانتهاء فعدنا في حزب الأولياء وامحو ذنوبنا مع الإخوان واستر عيوبنا مع الغفران بحرمة اللهم صل وسلم وكرم وارض وارحم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً salawaatullahi wa salaamuhu wa taxiyaatuhu wa xayraatuhu wa barakaatu ala abdika rasulika nabi ummi adada shafai walwati rabbina taammaati mubarakat subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin